et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur et Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.sénégal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook. mbokk yi ñu teewlu ci Sénégal set ñu ngi leen di nuyu am mbégte retrouver leen ci seen chaîne de référence tey nag ñu am waxtaan euh, waxtaanee wàllu actualité ak yenn aspect yoo xam ne euh, généralement liñ koy aborder bëriwul Sénégal set daal di ci intéressé wu tey muy wàllu euh, droits humains droit. internationale euh, humanitaire ngir euh, mën a euh, waxtaanee loolu faram fàcce ko dañu siy dalal ki nga xam ne mooy Papa Abdoulaye Khouma di conseiller spécial bu njiitu réew mi di président Macky Sall ci wàllu droits humains ak ak yelleefu doomu aadama yi waaye itam ci wàllu droit international humanitaire moom itam responsable APR la fële ci Parcelles Assainies monsieur Khouma ñu ngi lay nuyu. waaw Cheikh maa ngi leen di nuyu di leen gërëm leen sant nuyu téléspectateurs yi di am mbégte lool retrouvé wu ci cadre bi nga xam ne eh, maa ngi koy wax barki Dembo Ndiaye lañ ci gis suñu xarit suñu mag euh, mm-hmm. sama jëwriñ man Moustapha Diakhaté mm-hmm. donc euh, gis aussi ni ko ni ñuy suivre xam naa lu bees la waaye Pastef a ngi ci daal mm-hmm. ak ñuy faram pàccee aussi actualité ak mbir yi xew ci jamono lu am solo la. kon mm-hmm. man dëgg naa loolu pour nekk. jërëjëf ñu lay jaajëfal également ci disponibilité bi nga am pour wuy suñu euh, ñu fas yéene rek waxtaanee euh, lu jëm ci wàllu politique ni anam gi nga xam ne noonu la réew mi di doxee rawatina ci wàllu nekkinu doomu aadama yi ci seen wàllu àq ak yelleef ñu gis ne jamono ji euh, li nga xam ne mooy situation politique bi situation bu tendue la. alerte yi bëri na concernant euh, attention bi ñu war a def def ndànk balaa dëkk bi di tàkk ni mu demee nii yëpp ak rivalité bi nga xam ne moo am ci wàllu politique bi ba law ci biir askan wi naka nga ko jàngatee. waaw jërëjëf man ni ma ko jàngatee euh, analyse bu froide rek laa ci def mm-hmm. basé ko ci droit. Mm-hmm. droit constitutionnel bi nga xam ne. ci la réew mu ne di sukkandiku pour dox mhm. ci la ñuy sukkandiku aussi pour càmbar réew mais basé ko aussi ci science politique euh, c'est vrai que Sénégal dañuy dégg temps yi ñuy def alerte des activistes des droits de l'homiste naan wéy ak ak yelleefu doomu aadama mu ngi sooxe démocratie mu ngi wàññeeku mu ngi mais loolu je crois que boo koy wax da ngay basé wu d'abord ci ni nga xam ne noonu la ñuy saytoo ak ak fu doomu aadama ci réew. par exemple boo nee démocratie doxul. nga xool ndax liberté ñoo amul Sénégal. ñun de bis bu nekk ñu seetaan télé déglu rajo gis ku ñu invité ci plateau télé ay débat wala ñu invité la individuellement wala lu munti doon. Mhm. nga débattre ba sa xol féex nga génn taal sa oto dem ñibbi. kenn du la topp nelaw bu suba kenn du la ne lu tax nga wax bii bii mhm. ci télé sàngam wala ci rajo sàngam bis bu nekk aussi maa ngi teg samay pili journaux nga jënd journal liir gis ku bind attaqué nguur gi wala nga attaqué njiitu réew mi wala nga wax sa xalaat ci ni réew mi di doxee mhm. journaux yi publier ko kenn du la ne lu tax nga wax ko lu tax nga bind ko donc yaakaar naa loolu di liberté individuelle bokk aussi ci li ñuy wax ci les droits civils et ci yu mel noonu lañ koy saytoo fii ci biir réew mi mais bitim réew mi nga xam ne dafa am ay mbootaay yoo xam ne ci la Sénégal bokk xaatim seeni instruments juridiques internationaux te ñooñu ñaari at yu ne wala at mu ne ñu saytu Sénégal xool ndax la mu sàmm la mu digle ak ñoom mu ngi koy sàmmante wala déet mm-hmm. ñaareel bi mooy ñu xool ndax institution yi ni ci réew mi ñu ngi dox ndax présidence de la république ñu ngi liggéey président nga fa ak ses di wàcc di dem def seen liggéey bi tax ñu fal président de la république crois que loolu kenn waatalu Sénégal ndax assemblée nationale bi nga xam ne mooy péncu ndaw réew mi ak yeneen institution yu mel ni moom ñu ngi dox ñu leen di gis ñu ngi woote seeni i session ñu ngi def seen i réunion ñu ngi élaborer seen i budget ñu ngi liggéey ñu ngi voter seen i loi ñu ne justice ba nag ñu ne justice sénégalaise aussi nañu xool ba kenn taxaw ne justice sénégalaise liggéeyul wala defu nii wala tey dañoo tëj les cours et tribunaux wala dañuy def nii wala tey magistrat yi attewuñ ainsi de suite loolu hmm. yaakaar naa ne Sénégal euh, rëcc na ci ba fi ñuy wax ak yow hmm. li ci des nag mooy ak yeleefu yelleefu doomu adama ak démocratie ak bon gouvernance foo ko fekk lu ñuy parfaire la dafay nekk ci benn dynamique boo xam ne du mës a taxaw hmm. loo ci am tey boo amee ñaar suba da ngay xeex pour am ñett boo amee ñett suba nga xeex pour am juróom noonu lay doxe ba àdduna tukki du mës a jekk àdduna fen la jël mais loolu en tout cas mooy li wér te wóor mooy xam ne fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mi Euh, boo ci basé woo. pour atte Sénégal ndax àq ak yelleefu doomu adama mu ngi fi dox ni mu ware wala démocratie ni mu ngi fi dox ni mu waree mais je dis que c'est tout à fait correct. de mm. Sénégal est un pays de droit réew la moo xam ne àq ak yelleefu doomu aadama bokk na ci réew yi ci àdduna bi laa wax te dama koy wax fu leer soo bëggee mun naa la jox ay firnde yu leer ci wàllu yoon ci wàllu droit. bokk na ci réew yi nga xam ne àq ak fu doomu aadama fii lañ ko gën a respecté boo jëlee par exemple Union africaine ak Nations Unies au Conseil des droits de l'homme xam ne ñetti weer yu ne yàlla àtte na léegi mu def fukki at wala ëpp na ko damay dem réellement régulièrement ci session yi réew mu bokk ci euh, mbootaayu xeet yi mooy Nations Unies boo xaatimee benn convention mais Nations Unies dañ la naan xaatim rek doyul de parce que ku ne mën nga xaatim par exemple ñu ne la la convention sur les droits des migrants et leurs familles wala la convention sur les droits des handicapés wala la convention des <coughs> nations unies sur les droits de l'enfance wala bu ti doon xaatim ko rek doy na loolu tax ñu naan par exemple euh, euh, textes yi gën a rafet ñu ngi ci réew yi mais est-ce que ñu ngi koy appliqué hmm. moo tax Nations Unies boo xaatamee dal na am na lu ñuy wax rapport périodique ak rapport universel. rapport périodique mooy ñaari at yu ne di nga ñëw taxaw ci suñ kanam wax par exemple li nga def ci sa sàngam bi nga xaati te ñoom duñ yem ci nga ñëw rek indi sa rapport ñu déglu la bu ñu la programmé par exemple ñu le 31 décembre 2021 da nga war a ñëw. wax ci le les droits des handicapés au Sénégal ci deux dernières années yi balaa ngay ñëw am nañ possibilité ñoom. contacter Sénégal benn organisation non gouvernementale boo xam ne qui naa rien à voir avec l'État ñu commandité ko li ñuy wax rapport parallèle boo ñëwee ñu teg rapport boobu yow di la déglu xool ndax li nga wax ak boobu. benn la hmm. dañ lay laaj aussi sa processus processus bi nga bindee sa rapport bi. Hmm. processus yooyu nag Sénégal bokk na ci bi nga xam ne Nations Unies heure bu ñu demee dañuy ndaw ndax rapport bi balaa muy pare fi muy jaar mooy bari. Sénégal dafa am lu ñuy wax direction des droits de l'homme direction des droits de l'homme bokk ci ministère de la justice am assemblée assemblée bi mu ngi tudd conseil consultatif des droits de l'homme damay tàmm di wax directeur des droits de l'homme toujours ne ko à part le président de la république yow rek yaa fi mën a réunir conseil des ministres ndax conseil consultatif des droits de l'homme pratiquement ministère yëpp ci lañ bokk mm-hmm. léegi bu ñu dañuy def rapport national Sénégal dem présenter ko Nations Unies ñu ne yow mi bokk euh, ministère de l' information indi sa participation ci rapport bi ministère forces armées indi intérieur indi santé indi ainsi de suite sur le droit de la santé ainsi de suite droit au logement ku ne indi ñu dajale compiler buñ compiler ba pare ku ne dañ lay delloowaat ne la demal ci sa ministère nga xool ndax li nga wax ak liñ bind ci rapport benn ak côté de ces représentants des ministère mm-hmm. yem foofu rek baaxul ndax bu ñu fa yewoon dañ naan état la mais dañ naan société civile envoyé aussi des représentant dans le conseil consultatif ku mel ni RADDHO ku mel ni Amnesty International ñoom ñëpp ñu ngi ci conseil consultatif dañuy ñëw di fekkee rapport di jox seen participation di bind ñu delloo leen ko ku ci ne xool ñoo ne ah fii def ngeen fi virgule te man sama bos defuma ci woon virgule paragraphe sàngam dindi ngeen ko te man dindiwuma ko woon ñu wax la li tax ñu dindi ko wala nga wax ñu li tax ñu war ko ci boole bu pare ndax ñu yóbbu ko affaire étrangère dana ko demal déposer am na lu ñuy wax comité sénégalais des droits de l'homme mooy institut nation institution nationale des droits de l'homme boo xam ne réew bu nekk membre des nations unies am nga ko parce que nations unies moo ko digle comité sénégalais des droits de l'homme ay fonctionnaires ay syndicats ay membres société civile tam ñoo ci ne ñu ne la rapport balaa nga koy indi nations unies c'est une obligation mm-hmm. nga déposer ko sa comité réew le comité togolais des droits de l'homme wala le comité français des droits wa marocain nga déposé ko sa réew ñu joxe seen avis ak seen recommandation ku ñuy wax maître Pape Sène avocat moo ko jiite Sénégal mm-hmm. ñu jox ko ko ñoom ñu càmbar ko jël un mois xool ko ba ne d'accord dañ def seen avis def seen recommandation ñu jël tenir loolu en compte tëggaat rapport bi une dernière fois soo ko jox affaire étrangère mi nga xam ne c'est la porte d'entrée et de sortie pour tout état. ñoo ñu koy déposé d'accord ñu xaar suñu convocation nag ñoo ñu présenté pour terminé foofu. Mhm. ñetti examen Sénégal def na ko yoo xam ne yàlla àtte bu ne fekkee naa ko. Mhm. benn ci suufu Ablaye Wade ñaar ci suufu Macky Gassama Macky Sall pardon mhm. bu ci nekk dañuy jàll haut la main haut la main laa wax. haut la mai na ci Sénégal jàll kon man ci demee noonu laay basé wu wax ne. le Sénégal le Sénégal est d' accord alors gis nañu ay euh, manifestations yoo xam ne am na te bawoo ci affaire bu ñu wax affaire Ousmane Sonko te ñu tuumal ko wàllu viol menace de mort et cetera euh, ci altine bi ñu weesu début semaine bi ñu gis ne. Euh, balee ñu weesu ne am na ay manifestations yoo xam ne am na waaye ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñu ci jàpp dañu gis ne dañu subir ay ay ay métital yoo xam ne euh, policiers yi ñoo leen ko teg te wax nga wàllu convention yoo xam ne signé nañ ko dans le cadre euh, des Nations Unies ñu fàttali rek ne euh, Sénégal aussi euh, signé na le 18 décembre 2002 euh, benn euh, protocole ñeel wàllu lépp loo xam ne day xeex wàllu torture ak euh, wàllu euh, li nga xam ne mooy traitement cruel inhumain dégradant euh, yoo xam ne daal dañ koy moytu ci jëm respecté ak ak yelleefu doomu aadama yi naka nga mën a expliquer donc loolu nga xam ne moom mooy mettital yooyu ñu teg ndaw yooyu ci alors que Sénégal signé na convention yooyu. waaw mettital yi ñu teg ndaw yooyu kat kat moo ko wax ak fan la information bi jógee. am na est que est que am na. est-ce que y a des avocats ou des membres de la société bu ñu dem ba ci dans les lieux de privation de liberté. Mm-hmm. constaté ko wala dañoo xëy rek di ko lire ci presque bi. Euh, xam nga aussi c'est ça le le. oui y a des yoo xam ne ñoom ñëw nañ ba fii suñu plateau bi daal di partager euh, expérience boobu ñu xam ne vivre nañ ko euh, bi ñu leen jàppee. oui loolu laa lay wax. c'est mm-hmm. c'est-à-dire xam nga ñaari parti la. Mm-hmm. y celui qui a été détenu d'une manière momentanée ou arrêté lors d'une manifestation mu génn fa par exemple ñu ne ko bàyyi ko mu dem ma génn fa ne dañ ma torturé lakk nañ ma wala dagg nañ ma fii wala def nañ ma lii mais loolu en tout cas ñun juriste mhm. du ñu basé wu ci waxu benn nit bu ñaari parti amee ñaari parti yëpp la ñuy déglu mhm. il faut faudrait aussi que nit ñi di am présence d'esprit suñu journalistes yi ak suñu ñeneen ñi di dem vers la police. Mhm. vers la gendarmerie. ñu fàttali vers nos autorités. la ne jot nañu woo police. Mhm. mais ñoom dañu waxoon jamono boobu ne amaguñu autorisation addu ci mbir mi. oui ce qui est très normal. Mhm. c' est une administration. man par exemple soo may invité fii balaa may ñëw damay la ñaan sama kilifa autorisation. mënu ma jóg rek dem. par exemple euh, celui qui s'occupe de la communication de la police. wala kay boo ko oon day wax laaj hiérarchie mhm. bu ko laaj bu ko joxee at ah, barki demoo Ndiaye gis naa fi le le le responsable la communication la police. Mhm. comme euh, ci benn chaîne de télévision. mu toog ak ñëpp bokk mhm. débat wax. ci wàllu Covid bi ci wàllu Covid bi. parce que dañuy wax ne dafa am ay liberté yoo xam ne euh, euh, mesures yi ñu jël daf daf ko restreindre. mu ñëw di ci wax affaire couvre-feu bi mu ci wax donc loolu man laay invité toujours sama xaritu journaliste yi. parce que on a une police qui est ouverte on a une gendarmerie qui est ouverte. Mm-hmm. dañuy wax man amoon naa benn professeur à la relation internationale monsieur Ablaye à Lyon 3 daf mu doon wax ne war ngeen def attention xuma ki les forces de sécurité de défense au Sénégal maa ko mais pourquoi monsieur mu ne ma elles sont composées d'une élite intellectuelle et l'intellectuel en général il réfléchit avant d'agir il reçoit des ordres il se permet de réfléchir mu ne ma c'est pas bon pour un militaire pour <laughs> policier un policier agir avant de réfléchir. ah ouais waaw <laughs> ce qu'il me disait mon prof de relations internationales. d'accord et généralement c'est ce qu'on voit. sur le terrain mais mais je vois dans la police sénégalaise dans l'armée vous avez trop d'intellectuels mais loolu c'est une chance moom gis-gisam la mais c'est une chance je le lui concède c'est pour nit ñi xam ne ñi fi nekk suñ force de défense et de sécurité seen rôle premier du réprimer du du xoqatal du métital mais garantir la sécurité et l'ordre de ce pays là moo tax léeg-léeg ñu gis ay nit dajaloo di manifester wala dara police wala gendarmerie ñëw mais dàq leen bu ko laajee ñu jàpp ñi mais tout temps respectant les procédures édictées mais loolu mooy doon problème nag quelquefois respecter procédure yooyu parce que dañuy gis ne police dafay brutale des fois y a des yoo xam ne doo ko mën a expliquer da ngay poser la question de savoir role bi nga xam ne moom la police amee est-ce que en réalité ñu ngi koy mettre en œuvre certains citoyens xam nañ ko mais dañuy gis ne en réalité daf dafay mel ni dañuy jël lépp fule ko du pied pour def euh, entre guillemets lu leen neex. bon ma ma man très sincèrement. du ma mm-hmm. policier du mm-hmm. mais li wér mooy. à chaque fois que force de l'ordre descend terrain du ñëw rek dal ci ko population hmm. mois jour je vois des hommes de loi des gendarmes des policiers yoo xam dañu ñëw di dialoguer ba nga naan di sax est-ce que li ñuy def ëppul ak nit ñi hmm. mais nag xam nga li ñuy wax effet de masse kenn de toll ci ginnaaw ful rek mun na am sax ñu doon manifester c'est hmm. des gens corrects dañoo buggoon manifester ci jàmm mais kenn toll ci ginnaaw sànni xeer wala kenn def li affaire bi déclenché gis nañ bërki dem ba Ndiaye brique lañ dóor policier ci bopp brique. Hmm. les élections de deux mille gis nañ fi benn policier boo xam ne dañ ko xëcc këf ko ci biir policier yi xëcc ko mais laata ses ses ses camarades di intervenir gaañ nañ ko. oui mais est-ce que du bi nga xam ne moom la. police di agir aussi violence bi u ou ou ou peut-être. Hmm. Euh, euh, euh, dañuy riposter par rapport ak violence bi jógee ci les manifestants. d'accord parce que ñoom bu ñu ñëwee toujours. Mhm. dañ leen di wax il faut discuter avec les gens il faut les dissuader essayer de les calmer ainsi de suite. Mhm. mais boo toogee nag yu ay xeer dal sa kaw ay briques dal sa kaw ñu taal ay pneu sànni la ko. Mhm. il faut nga riposter mais riposter wuñ ñoom ils se protègent. ils am na lu ñu protège mais dañuy riposter pour aar population yi dëkk ci gox yi parce que bu di ñuy fàtte boo waxee liberté. ne yow am nga liberté marche liberté manifester mais ñi dëkk ci sa quartier bii. nga organiser sa ndaje war a manifester mais c'est la police n'est-ce pas moo am mission aar leen défendre leen ba lii ngay def tey du leen fanqal dara ñoom aussi mm-hmm. loolu il faut nit ñi di ci bàyyi xel mm-hmm. comme on dit la liberté des uns commence s'arrête xawma la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. d'accord alors bu ñu jëlee jëlee euh, exemple policier bi nga wax euh, gis nañu ne procédure bi nga xam ne moom la police demee woon euh, ci kër Ousmane Sonko pour être précis ci rassemblement ba nga xam ne amoon na fa bi ñu bi police ñëwee capitaine bu mu ñëwee effectivement ñëw na waxtaan ak foule bi ne leen dajaloo bi ngeen di dajaloo contexte bi ñu nekk bugg ko. te am na ay décision yoo xam ne jël nañ ko ngir tere lii donc boo leen mënee euh, disperser wu ce serait mieux donc loolu euh, jot na am foofu ci waxtaan bi ngay wax léegi ne euh, police daf koy seq généralement ak ñi nga xam ne ñoom lay ñëw di seqal sur le terrain mais le problème mooy ne est-ce que bu fekkoon ne bàyyi nañ leen fa ñu manifester seen soutien ak si seen leader bu ñu paree dam seen yoon est-ce que bu boobaa li am ni dina dina xew kon oui tout tout tout dépend. Mhm. man je suis persuadé que ne l'officier de police ou de la gendarmerie bu ñëw pour une mission déterminée. Mhm. ñoo par exemple war a jël nit n'est-ce pas wala ñu arrêté benn manifestation wala dara comme tu l'as bien di comme le capitaine l'a fait bu ñëwee day waxtaan ak nii. Mhm. nee na ah affaire bi kat nii ak nii la demee bu ñu sañoon ngeen arrêté manifestation bi seen sabar gi wala seen jàng yi. wala seen baal bi. wala kii la ñuy jël si buñ sañoon ngeen bàyyi yóbbu ko. Mhm. mais bu fekkee ne dañoo heurté wu à la résistance boo xam ne ñii taxaw dañoo taxaw ne lii yoon tëral tey du fi am lu ci dal. Mhm. affaire bi duñ ko arrêté mais su boobaa ñoom aussi ils sont dans l'obligation n'est-ce pas de satisfaire à leur mission n'est-ce pas en foo fekk violence am rek c'est parce que les gens se sont agités yëngal mais police du ñëw rek je suis à peu près sûr et je le dis haut et fort. police wala nos forces de sécurité et de défense duñu ñëw parce que bu ñu fàtte ne ñoom c'est des sénégalais ils descendent pas du ciel fii la ñuy jàngee ñu bokk ak ñoom classe ñu bokk ak nit ñi classe surtout yooyu te raconté une anecdote en semaine xarit mu ngi haute autorité je crois de l'aéroport lañ ko xamoon ñoo bokkoon école Fatick. très brillant très brillant mu inscrire lettre classique seen devoir dañ ko doon affiché tableau. très brillant melul woon ni man mais xam nga Sénégal rek des fois da ngay obligé dagg sa jàng pour liggéey. mu mhm. def concours police inspectorat police officier de police pardon nee jour bi mu ko njëkkee wàccee mu nekk en stage mu wàcc buntu université gàddu lacrymogène sol trait fekk grève am dafa wàcc ci oto bi yéegaat ne non c'est pas moi moi je vais pas faire ça mhm. du ma dal ci ko ay étudiant vous voyez après la toogaat chef am laaj ko après mu ne non dafa am lu mu doon seet daal di wàccaat def sa mission pour dire que c' est des sénégalais c' est li ñuy dund moom laay dund moom la keneen di dund. Mm-hmm. bu ñuy sañoon ñoom duñ dem ci benn mission mu dëgër wala mu métti walla mu am leneen. Mm-hmm. mais nag quand tu de troupe à la duñ d'une centaine d'éléments ñu encercler leen di leen dóor ay xeer leen dóor des grenades artisanales di leen dóor yeneen. ah là vous avez dans l'obligation de protéger vos hommes et de riposter. d'accord alors ci euh, dans ce cadre la euh, rapidement pour dam wax euh, leneen euh, gis nañu ay manif ay euh, activistes yoo xam ne aussi dañuy bëgg jóg pour dem déposer une lettre d'information pour def marche mais gis nañu par deux fois ñoo xam ne dañu dem pour déposer cette lettre là mais dañ leen di jàpp motif bi ñuy teg tout le temps mooy trouble à l'ordre public et pourtant dañu gis situation boo xam ne euh, dafay niroog situation situation de trouble à l'ordre public est-ce que jàpp ne aussi généralement les autorités dañuy làqu ci ginnaaw motif boobu pour empêcher pour restreindre euh, dans une certaine mesure liberté yi nga xam ne euh, euh, constitution bi daf koy consacrer ñi nga xam ne ñooy citoyens yi. non non non non très très honnêtement je crois hmm. boo boo xam nga fii marche moom. régime de déclaration lañ nekk au Sénégal mhm. mais euh, soo gisee la liberté de marche de manifestation au Sénégal mhm. nga xool ko dans la constitution sénégalaise nga xool ko dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1889 nga xool ko dans la charte africaine des droits de l'homme et des toujours sénégalais bu ñu koy lire dañ koy dàgg duñ lire article ba mu jeex dañ naan rek oui la liberté de marche est est par la constitution sénégalaise. Mm-hmm. mais liberté boo gis dafa am lu ko ak sëñ bi. Mm-hmm. n'est-ce boo jàllee ci alinéa de da lay wax ne sous réserve. Mm-hmm. n'est-ce pas du respect des lois et du règlement de ce pays. tout loolu la lay wax. loolu am na koo xam ne moom lañ fi teg mu ñuy wax autorité administrative le préfet le gouverneur le sous-préfet bu koy saytu boo ñëwee def sa déclaration ne damay marche. nga ne par exemple damay jaar mbedd bi mais le préfet war na xam ndax boo organiser sa manifestation bi am na booy yoo xam ne ñu ngi fële seen yoon nekkul ci yow li ngay lijjanti. Mhm. peut-être seen terrain lañ tëj fële wala dañoo toj benn kër mbokk fële ñu ñëw dugg ci prox ndalu sa marche sabote ko. Mhm. sànni xeer wax dara ñu ne ah oui loolu la préfet di bañ. moo tax préfet boo defee sa décla boo déposé sa déclaration moom mooy xool bis bu rafet. bu fekkee ne lënd bii nga ko wax vingt et un décembre baax na mu ne la ok su baaxul mais c'est à lui de lui dire non bu ko def lundi def ko beneen date bu dee itinéraire bi nga jël mu xam ne itinéraire bi boo ko jëlee am na ay sambabo yu nar a taxaw infiltrer sa marche yàq ko indil la problème yow indil population problème mu ne la non non changer itinéraire demal fii demal fii tey bul dem boulevard de la République demal boulevard Jean Jaurès wala demal feneen. au fait affaire bi loolu la mais nit ñi dañuy ñëw def seen déclaration ne jour bi ma bëggee marche bi. def ko sama déclaration jour boobu lañ ma war a autoriser itinéraire bi ma tànn boobu lañ ma war a mais c'est pas ça aussi réew du doxe noonu instrument juridique international boo gis boo gis ba ci la convention européenne de sauvegarde de droits humains bu ñu yegsee fu dañ lay wax toujours liberté yu bëri dañ lay wax sous réserve respect des lois et des règlements du pays sinon boo ko def la anarchie lay doon d' accord d' accord alors sànq joxe nga euh, monsieur Xuma li nga xam ne moom la ñuy saytoo euh, droits humains yi par rapport ak respect bi ñu ko respecte soit liberté d' expression euh, respect des euh, des des des droits des citoyens et cetera wax nga ci lu jëm ci wàllu application justice. ba ci euh, anam gi nga xam ne moom la institution yi di doxee ba ci assemblée nationale mais pour teg tànk foofu ci assemblée nationale concernant procédure bi nga xam ne ci la ñu nekk ci la ñuy liggéey actuellement pour lever euh, immunité parlementaire bu Ousmane Sonko gis nañu li xew démb foofu ca assemblée nationale euh, ñi nga xam ne ñooy député de l'opposition yi ñaxtu nañu nee nañu amuñu droit de parole ci biir seen hémicycle mais loolu aussi naka lañ ko mën a expliquer est-ce que gis mu mënuñu jàpp ne aussi euh, pouvoir bi dafay dafay wane dooleem ci ci sax ci biir institution yi. xam ne Sénégalais yëpp ko bokk mais je gis nga ñooñu. Uh-huh. c'est des comédiens. ah ouais c'est des comédiens au vrai sens du terme uh-huh. ñu ngi assemblée di participer aux plénières techniques. Uh-huh. laax de. parce que am na ci kenn koo xam ne dégg naa moom kenn xamul kañ la ko joon assemblée ba démb bi mu egsee sax gars ñi dañoo waaru ne ko namoon nañ la parce que ça faisait longtemps on t'avait pas mm-hmm. parce que benn affaire la woon peut-être pour moom kii genestère mu ñëw sa mm-hmm. waaye député yi war nga am courage walla honnêteté intellectuelle un député de l'opposition quel que soit le parti ou non inscrit nga taxaw naan dañ ma xañ sama temps de parole ku xam assemblée nationale xam rigueur u président Moustapha Niass xam ne fu mu toog secteur général la mu ngi ci wetam yor looy texte même nombre de minutes yi nga war a wax du ci am jiixi jaax ak yeneen ak yeneen boo dugalee motion lenn amendement loo munti dugal on convoque les textes ñu xool li nga moom ñu jox la ko. yaa nag yoon yi wéy la presse dañ leen tere ñu bañ a dugg ci biir. mais loolu effectivement on l'a vu sur les on l'a vu sur les images. oui mais mesure la boo xam ne dafa ñëw avant parce que gis nañ le député Ablaye Wilane ak ak ak Adji Mbergane. Mhm. def nañ i interview mais ci biti lañ ko defee parce que dafa am benn moment weer yi passé quand même Covid bi frappé assemblée mhm. nationale. Mhm. am nañ ci am nañ ci. ku mel ni Pierre Ndiaye ñu ne foofu la ko jëlee. le le le la ancien directeur de la construction de l' éducation nationale. sama xarit le maire de de Richard Toll ñu ne mhm. foofu la ko jëlee ak ay député am député yu wàññeeku aussi. Mhm. ci la ñu jëlee woon ay mesures ne léegi même député yëpp sax dootu ñëw dañu de diminuer le nombre de députés respecter dis euh, distanciation ay presse ak yooyu dootu ñëw kuy wax def interview wala dara da génn ci biti nga xam ne foofu se à l'air libre nga wax ak journaliste yi mhm. alors mais ñoom dañoo ñëw bëgg a ñu leen de am na mesure ki leen ko wax bi. xamul sax ay ay ay ay ay deful sax référence pardon ci ay bisu tey wala lii daf leen ne am na mesure yu fi nekk qui s'applique man je suis à la présidence de la république mais ça fait des mois dañu am note de service boo xam ne daf ñuy wax dootu leen recevoir audience hmm. dootu leen recevoir audience dañ ko arrêté service bu ci nekk dangay jël say mesure ba nga nga dugg président da ngay raxasu da ngay sa loxo boo duggee ci biir raxasu et yow mi fa nekk nekk conseil spécial du président la république ministre conseil ay gendarme ñoo lay saytu boo ñëwee takkoo sa masque ndombo loo mun a takk président de la duñ la bàyyi nga dugg boo nee du ma raxasu da ngay raxasu par force wala doo dem sa bureau da ngay naan dem ñibbi. Mm-hmm. mbir aussi noonu lay doxe lii ñun ñëpp la ëlëm ñun ñëpp la sonal état baa ngi xeex nit ñaa ngi lijjanti suñu suñu suñu euh, médecins yi ak ñëpp ñu ngi ci service yaa ngi ñaan. Euh, borom aada yaa ngi ñaan donc nañ dimbale nit ñi lu ñuy wax ñu respecté ko ba yàlla dimbale ñu ñu génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin accord dinañ si dinañ si ñëwaat léegi xam naa ne li ñu dese si temps bëriwul euh, ñu euh, rekk wax ci seen taxawaayu député yi bëri na askan wi li muy ngàññ taxawaayu député yi ci biir assemblée nationale bi li gën a élémentaire ñu xam ko mooy ni député luy rôle mooy taxawal askan wi ci biir hémicycle bi. Euh, seen taxawaay ñoom ci seen wàllu liggéey naka nga ko gisee. alors xam nga Sénégal moom. Mhm. juger ay nit ci seen liggéey dafa yomb. oui mais bu fekkee ne li ñuy xaar si ñoom gisuñu ko mën nañ apprécier. Euh, oui mais c'est c'est c'est là où je vais en venir. d'accord ñun toujours ñu toog dégg ñu ne président la république amul conseil. Mhm. mais président dafa amul conseil xanaa mais président. su ma ko conseillé ne ko petit meew gloria hmm. niñ ko dindee cent franc jaay ko cinquante franc du ma génn ci mbedd mi di ko wax le conseil du président de la république day communiquer ak son patron par not hmm. et il président de la république de voir ndax li ma conseil bi conseil baax na lu mu war a def la lu mu warul def la hmm. n'est-ce pas le député à l'assemblée nationale aussi xoolal bu session assemblée ubbi ba ni muy tëje député yi nga xam ne xam nañ li tax parce que aussi il faut le dire dafa am député yoo xam ne dañ xam li tax ñu fal leen li tax ñu yebal leen assemble am député yu ko xamul keroog bi ñu déggee titre bi député à l' assemblée nationale takk ndomb tànk bi keroog lañ commencé di lijjanti li ñuy gañ ak seen per diem ak seen mission am na ci ñoo xam ne bu ñu demee assemblée nationale mission lañ dégg ñu dem lijjanti bu ñu bokkee dem voyage bu ñu bokkul dem voyage. Hmm. dem lijjanti seen carburant avantage ak yeneen. mais am na ñuy taxawal Macky Sall foofu produit travail. c'est pas au niveau des plénières mais c'est au niveau des commissions fa la gaa di toog ministres yi ñëw ak seen cabinet ñu toog di wax di di di def un travail technique durant des heures et des heures et des heures ba toog mais loolu aussi du à chaque fois bu lu ñuy génne xam ko Sénégalais yu bëri xamuñ ko. Hmm. Sénégalais li ñu xam assemblée mooy plénière nga na ñu toog séance plénière assemblée gis télévision def ko en direct. n'est-ce pas ñu seetaan député ku nekk jël parole. Hmm. am na ci député yoo xam ne nag foofu bu ñu jëlul parole moom dañuy dee. parce que il faut ñu jël parole pour war seen askan ne vraiment li tax ma mais loolu taxul ñu yóbbu leen assemblée. mais c'est important aussi. mais loolu taxul ñu yóbbu leen <laughs> assemblée. li tax ñu yóbbu leen assemblée mooy ministre de l'éducation nationale gi ñëw ñu dem fekk ko plénière salle boo xam ne dañ koy fermer ça fait même pas cinquante personnes ñuy liggéey toute la journée xool lu améliorer jàngu xale yi. d'accord alors ñu progresser rapidement euh, wax ci wàllu Covid bi démb réceptionné nañu euh, deux cent mille vaccins. deux cent mille euh, euh, vaccins yooyu daf ñuy fàttali un peu il y a un mois précisément benn tweet boo xam ne ministre de la santé de l'action sociale defoon na ko euh, daal di wax ne jot nañu benn don benn don de la République de Chine ci don boobu nag toll ci deux cent mille vaccins loolu nekk benn feddali bu Chine di feddali amitié am ak Sénégal mais ñu gis ne systématiquement quelques minutes après daf ko dindi tey ñu ñëw nañu euh, deux cent mille vaccins yooyu dañ ko jëndee deux milliards cent soixante dix huit millions et quelques mais loolu aussi est ce que est ce que euh, lu niroog transparence mu ngi ci monsieur Khouma. waaw waaw moi je suis pas dans le secret des dieux mais xam nga ministre de la santé mun na tuuti def erreur. Mhm. toujours ñu gis ko envoyé texto wala dara def erreur supprimer ko mun na tweeter def erreur comme aussi mënoon na nekk ci logique négociable parce que lui moom le président de la jox instruction pour mu toppatoo vaccin mhm. mais mënoon na nekk ci logique gu doom bi mu koy def n'est-ce pas mu dem ba ci biir logique gu doom boobu n'est-ce pas ama rupture moo xam ne il est dans l'obligation d'acheter mu dindi ko maanaam mën nañ ko jàppee njuumte ko mën nañ mën nañ ko jàppee njuum mais est nekkul njuumte bu yomb aussi non non loolu laa wax je sais pas dama ne je suis pas dans le <laughs> mm-hmm. ko di ko gërëm mm-hmm. di ko féliciter ci liggéey bi muy abaat démb dëgg naa président de la République j'étais président Macky Sall recevoir les vaccins vous êtes journaliste mm-hmm. vous nga ne état yi nekk en Afrique recevoir vaccin bëreegul dans ce temps président toppatoo ko indi ko ci Sénégal ba pare ne ñu définir ñi nga xam ne ñoo prioritaire les personnes âgées plus de soixante ans nest pas les les personnels euh, au niveau des des soins et et cetera. ba pare ne beneen vague aussi vaccin mu ngi ñëwaat xam nga loolu boo gisee sa président def ko et malheureusement démb dama survolé la presse survolé moo ko sax dama lire la presse chaque jour moi je la presse gis les gens la presse s'est apesantie sur autre chose que sur la réception des vaccins. liggéey bu yem noonu Macky Sall liggéey ko. ba war a recevoir envoyé avion Air Sénégal mu dem jëli kii vraiment euh, waroon na nekk primeuru information pour tous les Sénégalais. pourtant on l'a on l'a repris. oui mais on l'a repris comment c'est c'est ku nekk ak sa ligne éditoriale et donc liberté boobu aussi il faut ñu accorder ko voilà c'est ça c'est ça euh, un dernier point euh, monsieur Khouma rapidement euh, njàpp bi tey war na ñëw après pour janook Clédor Sène ci émission Sénégal rendez-vous de Sénégal 7 alors Joe Biden di njiitu réew mu États-Unis bu bees bi moom dafa wax ni réew yi nga xam ne duñu nangul communauté LGBT seen taxawaay comme ñu nekk ñu am liberté comme tous les autres citoyens bu ñu ko deful am na ay sanctions ci wàllu koom-koom yoo xam ne day dal seen kaw ak yeneen euh, façon ci sanction est-ce que Sénégal pare na pour nangu loolu nga xam ne moom la Joe Biden wax pour la boog pour euh, franchir euh, ci li nga xam ne moom la Joe Biden wax pour topp ko ci bëgg bëgg boobu vu réalité yi nga xam ne moo am Sénégal loolu loolu je crois que c'est très clair gis nga lu jëm ci affaire homosexualité mm-hmm. la position du Sénégal du varier d'un iota très bien le président de la République est très ferme et très clair là moom mii Joe Biden son ancien patron Barack Obama mm-hmm. bi mu ñëwee palais la taxaw ci cour bi revendiquer la dépénalisation de l'homosexualité président Macky Sall ne ko lu ci dal. pare wuñ def ko pare wuñ boobu sax am na ñu koy interprété neneen. oui ça veut dire que. mais <laughs> man man mi xam président la république. <laughs> xam ko muy siin siin ma bokk ak moom ñun bu ñuy wax noonu lañuy ñuy wax. Mhm. Ah, c'est c'est léeg-léeg sax nga làkk olof ñu ne la sa olofu siin siin wala sa. réponse bu am teggin la daal réponse bu am teggin la. Mhm. réponse chef d'état la. Mhm. yàlla dool defal na ma. man participer naa comme ni ma la ko waxee léegi ci session yu bëree bëri xaw ñaata la devant les conseils de toujours recommandation day ñëw tubaab yi il faut dépénaliser l'homosexualité nous nous recommandons au Sénégal on di ñeent. ñeent am na sax benn recommandation bu ñu jot dernièrement boobu c'est le Ismaïla Madior foofu moo nekkoon garde su suñu dee exemple euh, euh, l'état du Brésil nañu wéy euh, la polygamie est une sorte de maltraitance de la femme. il faut ngeen dindi ko. sa nous a fait rigoler mais le garde so Sceaux ne leen vous libre de nous le dire. mais ñun on préfère être des polygames que avoir une seule femme et de passer tout leur not temps à la tromper. d' accord alors temps bi ñu euh, cërale woon jeex na. ñu bàyyi la rek nga def sa dernier mot. waaw di di di leen sant bu baax di leen remercier bu baax parce que c' est des moments très riches d' échange mm. yaakaar naa budul man aussi. kenn ku ne ku bëgg a wax ak réew mi kenn ku ne ku am sax xalaat ci réew mi. Mm-hmm. bala nga am yooyu leeral war nga mun a ñëw ci bërëb bu mel ni di répondre seen invitation di ko leeral. merci di ñaan yàlla yàlla dëgëral leen. Euh, yokk leen ay moyens xam nañ ne c'est très difficile pour tout début. Mm-hmm. waaye ni ngeen ko jàppee ni bu ngeen continuer bu soobee yàlla dina baax je vous remercie. jërëjëf ñu rappeler la rek ne Sénégal 7 existe depuis 2016. donc nous voilà nous sommes duñ duñu ay bleu quoi. <laughs> ñu ngi ci depuis longtemps. donc ñu malheureusement pour moi man maa koy soog a xam. waaye certainement <laughs> certainement donc ñu jaajëfal bu baax. ci disponibilité bi ñu jaajëfal leen également yéen ñi nga xam ne yéen doon siiw mu nekkoon euh, Pape Abdoulaye Khouma nekk. Euh, conseiller spécial bu njiitu réew mi ci wàllu droit humain ak euh, wàllu droit international humanitaire nekk itam responsable euh, alliance pour la république fële ca Parcelles Assainies ñu jaajëfal leen di leen ñaan ngeen des ak Sénégal 7 jàppite mu ngi ñëw léegi ak Claire Dorsène ci seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 jërë ngeen jëf. www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook,